mooy euh, Mame a Niang à tort ou bien peut-être le rapport qu'on euh, bon ce fameux rapport euh, je sais pas s'il existe ou il pas en tout cas il y avait un rapport dont Ousmane Sonko avait parlé est-ce que dëgg la wala dëgg su booba Mame Mbaye Niang il aura toute les toute la légitimité tout l'honneur pour taxaw ne sénégalais alhamdulilah seetal nañ ma mais bu dee tamit mbir mi nga xamante ni dañ ko ko jiiñ et am na lum si laale aussi ñu xool ba ba ban niveau de responsabilité la aussi ñu jël li nga xamante ni bon on a quand même euh, nos textes et nos lois yi nga xamante ne prévoir na yenn yi ñu jël daan bi nga xam ne war nañ ko daan nit ki daan ko ko euh, laas euh, ñu ngi koy wax sànq ci ci rapport yi mais tey les urgences sont sont sont nombreux attentes yi bëri na gars yi li ñu diggee bëri na sénégalais yi ñu ci bëri ñu ngi leen di xaar notamment ci wàññi li nga xamante moom moo jëm ci dund bi ci mesure yi nga xamante war ko jël parce que gis le premier Ousmane Sonko fan yi ci par rapport ak conseil interministériel yoo xamante ni jot da ko def notamment ci ci ci gestion des inondations euh, ci li nga xamante moo jëm ci campagne euh, moo jëm ci tabaski bi ak les examens et concours euh, yooyu baax na mais décision yi nga xamante ni jël nañ ko ci par rapport ak ces ces conseils am na ci loo xamante ni également ci seen seen projet diggé woon nañ ko par rapport ak nomination yi c'est vrai que indi na polémique ñenn ñi jàpp nañ ñoom ñoo diggee woon appel à candidature xëy na defuñu ko ñoom nee nañ ci seen biir programme certains postes la ñu la ñu waxoon est-ce que jàppoo ne tey ñoom ci seen côté communication également am na ci euh, loo xamante ni war nañ ko saytuwaat ci ci li nga xamante ni moom moo di seen doxalin. waa déjà dafa am loo xam ne euh, ñun li ñu wax ci suñu programme. Mm-hmm. ak ce les autres veulent nous faire dire ou bien veulent comprendre. Mm-hmm. Il y une grande différence ñun li ñu wax boobu ba tey ñu ci xam nga nee naa la. Euh, gouvernement euh, régime mu président Bassirou Diomaye fay ak le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko donc boo leen di critiquer leen di critiquer sur des faits da ngay nekk dans le dans le factuel. Euh, dinaa def benn parenthèse Alassane Sànq mi ngi wax en parlant de Macky Sall les réalisation waxuñu lépp dafa bon non pas du tout parce que nous nous sompan sommes pas nihilistes il a fait des choses yoo xam ne yu baax la donte nag musiba yi ñoo ëpp. sànq il a parlé de d'inflation au niveau du du Sénégal. moom mun na dem rapport ANSD mu xool inflation Sénégal euh, le dernier rapport il est de cinq sept virgule cinq pour cent France bi nga wax en Europe man Europe laa la laa jóge mm-hmm. euh, je fais l'Europe l'Europe occidentale particulièrement France donc maa ngi nuy dans les habitants de Yvelines mhm. euh, les Pisiaké waa Poissy yëpp ak waa 93 yëpp sénégalais yi fa nekk yëpp mhm. donc fi ñu toll nii France seen inflation mi ngi ci 5 virgule 5 pour cent mhm. par rapport ak euh, euh, par rapport ak li mu wax le secteur informel nee na dafa ñëw fekk secteur informel bi 65 pour cent Macky ba mu ñëwee 2012 mu fi jógee le secteur le tissu économique est composé majoritairement de 97 pour cent du secteur informel man nee naa la chef d' entreprise la yow ba ngay am bac man créé naa sama entreprise en 2010 comprendre nga donc maa ngi bokk ci organisation patronale bi ñu bokk CDS avec le président Babacar Diagne que je salue au passage mooy conseil des entreprises du Sénégal président Diomaye recevoir na les patrons des organisations patronales donc pour ñu waxtaan ci wàllu économie bi sànq da ngeen ko wax gis pour euh, Euh, tontu ci les attentes des Sénégalais on n'a pas besoin de discours on n'a pas besoin de logoré on n'a pas besoin d'envolées lyriques nous nous sommes dans le temps de l'action li ñu tax a jóg mooy nee naa la ñun boo ñuy critiquer critiquer ñu ci ay fait campagne arachidière le secteur primaire lan moo ko ëpp solo pour tirer euh, euh, l'économie vers le haut amul c'est le secteur primaire mooy l'agriculture l'élevage les produits dérivés les matières premières ñun ci loolu lañ nekk daaw premier ministre bi fi nekkoon dafa annoncé woon un budget de cent milliards ñu ci def motul sax soixante dix milliards. ñu ci def laa la wax motul soixante dix milliards. xam nga premier ministre Amadou Ba dafa ne woon daaw ñoom dañuy def cent milliards. ma ne leen amul du dëgg du ñu ci def cent milliards ay dóor la mais ren ñun wax nga ko sànq. passation de service lañ def on a hérité aussi bien de l'actif que du passif. hérité wu ñu baru baru ñetti at donc kon cent milliards yi ñu waxoon ne dañ ko cee def daaw def nañ ko ci c'est ce sont de faux chiffres ñun euh, fay nañ boru ñetti at boo ñu critiquer critiquer ñu ci loolu attente sénégalais dund bi ngay wax ñoom ñoo yàkkamti xam nga ñoom malheureusement ils n'ont pas non non ñoom laas aussi sénégalais ñoo yàkkamti parce a yéen ne dafa dund bi dafa cher ba ngeen joxe man mii néew di doole dund bi dafa cher ci man feeg foofu nga juumee nag c'est-à-dire le le non, le premier ministre. non non musul wax non non musul musul wax le 15. non waxul ah, wàññi dund bi mais daf ne daf ne jox na instruction. dama lay wax moo di ay ministre am ñu xool programme bu ñu élaboré. ñu jox ko ñu jox ko des rapports. waaw fii le 15 mais ce qu'il est en train de faire le 15 ñun gisuñu rapport. dégguñu Ousmane Sonko waxuñu ci. Ibrahima yow yow yow yow tu n'es pas légitime pour recevoir des rapports. c'est le premier ministre du Sénégal à qui les ministres. de différents départements concernés. mais bu muy wax di àddu di wax ak. sénégalais yi xam nga moo tax ma ne la àddu di wax ak sénégalais. xam nga na ne xam nga jot na rapport wala fii ak ay. wala fii ak weer wala fii ak ñaari administration nag du doxee noonu. Mhm. c'est-à-dire administration. Mhm. dafa am lu ñuy wax beeco. lu wax kumpa. Mhm. premier ministre du lu mu def du matin au soir muy génn di ko wasaare. les rapports ont été transmis au premier ministre. mu def les arbitrages. li mu ci mën a régler mu régler ko. mais nit ñi il faut que ñu xam ne l' autorité suprême c' est président de la république Absolument. c' est lui décide de la conduite de la politique donc premier ministre dañ ko jox pour mu coordonner lactivité activité gouvernementale mais c' est le président de la république Bassirou Diomaye Faye moom mooy wax ne fii ak fii lañ jëm mais wax naa la sànq recevoir nañ les les les les patrons des organisations patronales. Mhm. les présidents d'ailleurs même ce ce soir war na tey recevoir na ñi xam ne ñoo di waa INACOI. waaw moom laa lay wax euh, INACOI loolu beneen INACOI jàppoo la. xam nga dafa am sànq moom laa lay wax ñun li ñuy communiquer ak ce que les gens veulent nous faire dire ou bien ce que d'autres veulent comprendre. ñun si ñu nekkoon ba tey ñu ngi ci dund bi dafa cher ba jéggi dayoo te ci kàttanu yàlla fan yi néew dana wàññeeku wàññeeku Euh, dafa am ay weer semaine. non non no pas we pas pas ay weer. balaa tabaski bi. dund bi dina am produit de denrée de première nécessité yu wàññeeku. xam nga nag yéen mais dégg nañu Ousmane Sonko cité loo xam ne Sénégalais moom la parce que ceeb moom laa lay wax daanaka Sénégalais yu bëri woon ñu koy utiliser c'est-à-dire tu m'as coupé l'herbe au pied moom laa lay ay nitu taax ngeen. yéen ay nitu ay ngeen cest a dire yéen riz parfumé ngeen di lekk yéen ñii surtout sama grand économiste bi riz parfumé lay lekk diwlin diwlin moom diwlin tournesol lay lay lay lay lañ koy ceebalee waaye néew di doole bu ci mel ni man mais huile de palme la mën a jënd man ceebu mbay laay jënd sama kër mais ceeb boobu ak diw bi may jënd moom la état di subventionné dans tous les pays démocratiques au monde subvention bi parce que subvention bi fan lay jógee mooy euh, les fonctionnaires ou bien les chef d' entreprise impôts yi ñuy fay moom la ñuy collecté ñu jël ci au-delà de la construction d' infrastructures hospitalières sanitaires euh, éducatives ak yooyu ñu jël ci bu demee en France par exemple que je maîtrise le mieux parce que fa laa dëkkoon fa laa ñu jël ci allocation chômage allocation sociale c'est-à-dire boo boo boo boo boo boo boo amul liggéey ñu jox la ay allocation jox la ci ay ndimbal des des acquis sociaux c'est-à-dire dimbali ci ay subventions que que ce soit dans le domaine de la santé dans le domaine de du travail ak yeneen ak yeneen moo tax it boo fa demee même boo amul këyit boo feebaree mun ngaa faju parce que ils ont mis en place un système boo xam ne donc boo fa defee ñetti weer rek donc mun nga dem ut euh, këyit boo xam ne dinañ la mën a faj te doo fay dara mais yooyu impôts yi ñuy collecté la subvention yi pour néew di doole yi subvention yi c'est pas pour les hommes les plus riches te ñun am na ci ay niche yoo xam ne fa la ñu jëlee xaalis xam nga à la différence ak le régime précédent le régime précédent dafa ne woon c'était un gouvernement et un régime de riches mooy dafa doon favoriser benn groupuscule boo xam ne ils se sont accaparés toutes les ressources du Sénégal toutes les ressources ces ces ces ces ces hommes d'affaires là ñoom ñoo ñëw investir dans les médias pour mun koo téye pour mun a def euh, benn benn moyen de pression sur l'État c'est-à-dire saa yi bu ñu amee problème rek ci seen i affaire ci la seen médias yooyu di yëngu di génn dal ci état bi ñu woo leen rek la seen problème ñu ñu calmer waat mais ñun on veut faire de l'équité mooy euh, parce que en règle fiscale on dit que celui qui gagne plus doit payer beaucoup plus que les autres. man barki Demba Ndiaye laa dem fay impôt 5 millions chaque année damay dem fay impôt avec mes entreprises euh, amul benn service fiscaux boo xam ne benn service fiscal boo xam ne wax na Lass Badiane ak ay entreprises amel na ko dërëm. parce que dama ko war a def. mais mais tey état bu bëggee jël tous ces tous parce que dégg nañ premier ministre mu wax ci ci système de rémunération bi tey bu fekkee ne chiffre d'affaires bu bu bu yokkuwul mu ngi wax tey ci masse salariale bu bu fekkee ne. waaw mais moom laa lay yokk xam nga nan la yokk xam nga xam la yokk li nga xam ne moo di prix pose problème aussi. yow xanaa xamoo yow yow ku ci mel ni yow ak Cheikh ak Alassane ak man mm-hmm. ak ñii nii seetaan mm-hmm. dañoo war a sarxool le premier ministre une euh, euh, euh c'est-à-dire euh, séddale bu équitable de nos ressources mais yow tu imagines quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de cinquante deux milliards à la fin de l'année budgétaire mu dem fay impôt huit cent millions chiffre d'affaires de cinquante deux milliards à la fin de l'année mu dem fay huit cent millions man ki man mi nga xam ne je n'ai que des très petites entreprises très petites boo xam ne du ma def sax chiffre d'affaires cent millions at bi bu jeexee je paie pare euh, presque dix pour cent ma dem fay ay dix millions est-ce que loolu équitable am na ci lu équitable am na ci donc dañoo bëgg def équilibre mooy ku gañe lu ëpp da ngay fay lu ëpp nga xam ne néew di doole yi ceeb bi dina mën a wàññeeku diw bi dina mën a wàññeeku euh, logement sociaux yi dina mën a am mais xamal le carnage financier et foncier qui qui qui a été perpétré à Mbourkat. Mbourkat c' est Mbourkat c' est l' arbre qui cache la forêt wax naa la zone bi ma maîtriser nga xam ne chaque week-end am na fa 4 hectares de. Euh, non mm-hmm. bokkul c' est c' ce sont des terres agricoles. man sànq sànq Cheikh maa ngi la koy wax. Mm-hmm. nee naa la Thierno Diagne fi mu nekk zone boobu am naa fa tool. tool boobu état mënu ci dara parce que je l'ai acquis à la de mon front. boobu Macky Sall nekkul président je l'ai acquis en 2009 donc loolu euh, da ngay dem ci collectivité territoriale bi nga leen damaa bëgg a bay ñu jox la nga fay ay impenses dem enregistrer ko au service des impôts ñu jox la këyit nga commencé bay. mais est-ce que tey kon jàppoon ne euh, le président de la république il a usé de ses autorités pour arrêter lépp lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy terrain yi ñu doon joxe wala tabax yi ñu doon ñoo xam ne nii ils ont acquis ci ci ci ci ci légalement. te ba pare ñu ñu moom laa la wax xam nga équité bi ma lay wax. transparence dans la gestion moom laa lay wax ne la ñëpp dañoo war a saraxolle président Diomaye ak son premier ministre Ousmane Sonko xam lu tax. bu mbir yi jaaroon yoon xam nga Macky Sall malheureusement dans sa tête c'est-à-dire il réfléchit comme Lionel Messi il est trop fort mais dans la pratique c'est-à-dire comme Krépin Diatta. il a beaucoup fait nag. il est brouillon dama lay expliquer ci ci ci plan plan. parce que BRT bi ngeen BRT bi ngeen doon man man musuma xas BRT man nekk ma ci yooyu. donc il a beaucoup fait plan d'urbanisme bu Mbour 4 boo ko gisoon bailleur. étranger boo ko dem mu yëkkati deux mille milliards jox la moo tax ma ne la Macky Sall dans la théorie il est bon mais dans la pratique il est mauvais gis nga Mbourkat il était prévu euh, centre de formation gendarmerie camp pour pompier hôpital euh, des aménagements urbains ay écoles ay districts sanitaires yooyu yëpp lañ ci prévoir boo xoolee dans le plan d'urbanisme mais à la fin qu'est-ce qui s'est passé ils se sont partagés nos terres quinze hectares deux dix hectares deux cent hectares loolu moo jaaduwul xam nga nag président Diomaye loolu la bëgg mooy li ñëpp bokk ku ci nekk li nga ci war a am nga am ko aussi bien dans la corniche waxuñu dañuy fu mu toll nii dañ koo arrêté momentanément waxuñu waxuñu ne yëpp dafa bon dañuy xool dans les règles de l'art ku ci nekk ni nga ko amee bu nekkee jaar na ci yoon ñu ñu jox la ko mais le président de la république bi nga xam ne moo fi nekkoon est-ce que xam nga ne moom moo njëkk violer la loi sur le domaine euh, mari public maritime Comment? parce que dafa jël mun ngeen ko vérifier aussi bien c'est simple dans Google mm-hmm. euh, Abdou Karim euh, Abdoulaye moo nekk ministre de l'urbanisme mm-hmm. ab Abdou Karim Fofana nekkoon na ministre de l'urbanisme mm-hmm. mu jël benn décret désaffecté parce que nit ñi li ñu xamul mooy les terres qui sont dans le domaine national état bu ko bëggee jox un privé da koy jëlee dans le domaine national def ko dans le domaine privé de l'état bu ko defee dans le domaine privé de l'état defal ko cartographie ba mu am identité su boobaa mu mun la koo jox pour yow nga mun a am bàyyi wala mun a am titre foncier mais bu ko bàyyee dans le domaine national day nekk des titre précaires et révocables mooy bu ñu la ko joxee Euh, même gestion bi wala euh, occupation bi c'est une occupation précaire et révocable ñun tool yi ñu jox c'est des occupations précaires et révocables tey tey bu ko état bi soxla woon da lay ñëw fay la impense yi nga ci def donc parce que c'est des terres du domaine national mm. du titre foncier de mais ce qui est grave mooy président dafa jël des terres du domaine national jël ko par décret désaffecté ko def ko dans le domaine privé de l'État jox ko ay ay nit ñooñu noonu lañ leen di enrichir par exemple tu peux pas prendre dix hectares dans le domaine public maritime nga dugal ko dans le domaine privé de l'État jox ko Lass Badiane mu jël le mètre carré di ko jaay à 3 millions mais 10 hectares mètre carré. 3 millions gis nañ ñu ne euh, ci ci ay documents yu ñu ñu génne le président Bassirou Diomaye Faye am na ci euh, ay tere yoo xamante ni jaay na ko le ministre Cheikh Diba mu nekk ministre des des des finances ñu gis également koo xamante ni dafa bokk ci ci. loolu c'est illégal. waaw mooy c'est pas <laughs> illégal. man jaaree na tere keroog ci domaine ci domaine maritime la. déedéet non non non non non du non non du domaine maritime c'est pas illégal mais ci domaine maritime parce que. non non non non du domaine maritime. est-ce que xam nga ne kayit boobu mën nga ko génnee c'est c'est visible. sur internet dama la ne. ce sont des terres yoo xam ne dañ koo désaffecté man am naa sama grand boo xam ne on travaille dans ensemble dans l'importation de de de de moto de tricycle. Mm-hmm. Euh, cité Tobago lañ ko jaayoon kër jaay terrain jaay. mu jënd ko 40 millions jaay laa la wax de liggéeyul impôt njàngam sax soriwul mu jënd ko quarante million commencé tabax Macky Sall avec ndem si yàlla l' ancien directeur de l'urbanisme Omar Sow ñu ñëw ranger tous les terrains mu perte. topp ci topp ci topp ci topp ci premier ministre Amadou Ba recevoir leen Mame Boye Diaw nekk directeur de domaine ba après ñu jox leen zone bi nga wax ni côté aéroport fii jomaay euh, am zone de recasement la c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne dañ leen exproprier ñu jël seen suuf ñu dem jox leen feneen sama grand bi ma lay wax foofu lañ ko jox mais mais est-ce pour pour régler ce problème ñoom waruñu woon a njëkkee ci ci seen seen seen seen bopp day restituer d'abord les terres yi ñu am parce que président Macky Sall defoon na ko fi ah, ba mu ñëwee coow lu bëri li nga xamante amoon na ko am na ci ay terrains yoo xam ne amoon na ko. waaw léegi yow boo terrain boo xam ne. Mm-hmm. le premier ministre Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye am na ko dans sur le domaine public maritime bu ñu ko génnee ñoom ñu xàccoo ci amul xam nga Macky Sall dañ ko Ablaye Wade moo ko mayoon terrain sur le domaine public maritime mu ñëw. nekk en mu ñëw non non non moom laa lay wax non déedéet domaine public maritime inspecteur impôt mënu ci dara prérogative président de la république maanaam décret rek moo ko mën a joxe. bokk ak xam nga moom moom laa lay expliquer sànq domaine national ak domaine privé. Mhm. Macky Sall mu ne dafay ñëw euh, terrain bi ñu ko may sur la corniche. Mhm. domaine public maritime maanaam delloo na ko. Mhm. parce que boobu ñu ngi wax ne waruñoo tabax ci littoral bi nangam ak nangam mais après il a violé la loi. il a signé des décrets bu defee déclaration de politique non non Ousmane Sonko amu fa. bu defee déclaration patrimoine xëy na dana danañu xam. est-ce xam nga ne premier ministre yu Sénégal Moussa am yëpp Ousmane moo ci gën a ndóol. ah, ah? parce que man xam naa ko c'est-à-dire moom balaa moo nekk premier ministre ba mu nekkee opposant man bëggoon naa ko. kon est-ce que dana tabax kër gi Ousmane Sonko tabax cité kër góor gi am kër boobu. Ziguinchor am. non non no non non xam na nit ñi dañuy fantasmer. nee naa la Ousmane Sonko. Euh, mille dix-neuf man bëggoon naa ko xettali pour mu dugg ci mbay bëgg ko booleek benn nit ci zone bi ma lay wax euh, euh, fi ñuy wax Fandam. Fandam mi ngi nekk commune Diass boobu àll woon donc euh, nit ñi ñëwaguñ fa ma bëgg koo jàppale pour mu bay ñu jaayee tool bi huit millions deux mille dix neuf laa la wax yorul. Ah donc premier ministre yi gën a ndóol yi Sénégal mos a am. Ousmane Sonko ci la bokk. Ah. koy xool xaalisam. di nga ko wër ci àdduna bi yëpp doo ko gis. loolu danañ ci dikkaat comme que président de la république am na ay bor yoo xamante ni jox na ko ci déclaration patrimoine. Euh, man sax amel na ma bor. <laughs> Euh, Alassane da nga lii da nga lii laas wax euh, le premier ministre am na ci ay conseil interministériel yoo xam ne jot na ko présider notamment lu jëm ci wàllu inondation yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy waajal lu jëm ci li nga xamante ni moom moo jëm ci également campagne agricole bi lu jëm ci les examens et wax na ci inondation yi. par rapport ak li nga xamante ni moom la ci euh, moom lañ ci war a taxaw en tant que état mais population bi également dem na ba wax ne population bi am na ci benn indiscipline boo xam ne am nañ ko war nañu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ni moom la ñuy comporté ba jox exemple li nga xamante di moo di moo di moo di Ziguinchor